yéen ñi safoo ak kóolite di seetaan chaîne bi woy leen di ko seetaan ak di ko topp ndax seen cofeel mooy sunu mbégte te li gën a neex mi ngi ci sunu kanam. Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV ci chaîne youtube Tivaouane 7 TV te tamit bu leen fàtte activer cloche bi pour mën a recevoir bépp bataaxal bu ñu dugal ci bu nekk. def un milliard bi te kenn du ci bokk loolu xam nañ ko ci yow ndax bare na fii loo naan diw joxe na nangam diw joxe na nangam. lépp yaay wëlbati di ko joxe. di ko joxe di joxeel diw. dama wax sa mbaaxu mag gis nga ñun suñu bàyyi kenn mënu leen fay. gis nga sëriñ bi dama toog bés. sama papa nekk ci saalam mu jékki-jékki rek mu am benn kilifa bu mu dendal bëgg koo defal teraanga. sama bàyyi woo ma ba ma ñëw mu ni ma sëggal ma sëgg. mu ni ma ndax gaayet naa nga xaalis ma ni quoi ah, déedéet mu daal di làmbu xaalis ni ma am ndànk mu ni ma damay bëgg a laajal diw te yow laay jëkk a laaj <laughs> joxal ma imaam diw joxal ma diw joxal ma diw nee leen damay laaj te ñoom dinaa leen laaj te bu ma leen laajee mën naa am gànnaayiwuñu jox bu ma leen laajee rek nañu laaj nañ joxe xoolal mbaax googu <laughs> ku nekk mu bokk la sama baay di waxtaan ba jékki-jékki rek ni ah diw yaa toog ah kii nag daal di commencé wax ju baax ci moom foog ma décorer ko indi leen ma sama mbubb mi indi mbubb décorer ko sama mbubb bi maa koy joxe daal di génne xaalis génne ni Habib ci yow laa jëkk indi gaaw jox ma ma daal di génne joxe <laughs> mu daal di commencé kenn ku ne mu laal la nga génn joxe xoolal bu ñu génnee gars yi di ma nuyu jërëjëf sëñ bi sa papa laaj yaa jëkk a joxe lépp moom la <laughs> xoolal mbaax googu mbaax googu walaay si bali xoolal mbaax googu walaay si xoolal ma mbaax googu li ko waaj ni woon yaa baaxul baax yaa baaxul baax yaa baaxul baax waaw parce que baax yomb na mais baaxul baax moo jafe moo jafe walaay si bali mais sëriñ bi jërëjëf yal na yàlla fay la di ñaanal yàlla nag équipe bii yéen ñi safoo ak kóolite di seetaan chaîne bi woy leen di ko seetaan ak di ko topp ndax seen cofeel mooy sunu mbégte te li gën neex mi ngi ci sunu kanam. Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV. abonné wu leen ci chaîne YouTube bu Tivaouane TV te tamit bu leen fàttee activer cloche notification bi pour mu a recevoir bépp bataaxal bu ñu dugal ci bu nekk.